Bienvenue sur Salam Vision. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري waxlul uqadata min lisaani xaw qawli wa baadu salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. aleykum salaam wa ginnaaw bu ñu delluwaatee sant yàlla ci mbaaxam nga xam ne kenn mënul def te yàlla duggul ci loxoom. laa xawla wala quwata nit amul pexe ci moy wala kàttan ci jëf loolu borom subhaanahu wa taala dugal na yàlla nag moo kawe moo màgg waaye di ñaan borom subhaanahu wa taala ci kawam boog ci màggam boobu yàlla ñu yàlla dimbali yàlla ñu yàlla teel boppam. di julli ci sànga boobu di Seydina Muhammad di ñaan yàlla rek yàlla dolli loo ñu dolli loo dolli ñu ko bëgg lu ndax bëgg bu amul pertement waaye nag ñaanal suñu maanaam suñu sëriñ maanaam Cheikh Ahmad Tidiane yàlla yàlla dolli ko ngërëm yàlla dolli ko leer ak ci kaw suuf waaye nag dañu fàtte mukk suñu maam Cheikh Seydi bu bi ñu amal jëmale ko Cheikh yàlla dogal na tey mu nekk suñu maam Cheikh Seydi Hadj Malick di leen nuyu di leen ziara di yeetu nuyoo bi xalifa général de Tijane Serigne Babacar Sy Mansour atalallahu amruhu wa aydahu nasara di ko ñaanal rek yal na yàlla gën a guddal fanam noonu la ñuy nuyu sëñ Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides ak mboolem xalifa yi ci kaw suuf dem ba Ndiassane fekk fa Cheikh Bekay Bekay Kuntu di xalifa général des Khadiriya Kuntu yi di ko ziara di nuyu nag sama sëriñ nag Baye Bekay Kuntu di ko ziara moom it di ko ñaan yàlla guddal xalifa bi noonu lañ koy nuyoo moom it dem ba lew na fekk fa xalifa bi noonu lañ koy nuyoo dem ba Baye Medina Baye fekk fa xalifa bi noonu lañ koy nuyoo dem ba Yoff dem ba Medina Sarr bàyyiwuñu kenn fa tabarakallahu ñaanal leen yàlla yàlla gën a guddal seen fan yàlla gën a sàmm leen ñu dellu si tey fii di yàlla weeru tedd bii rek lépp lu ci jàmm yàlla yàlla ñu ko ñu dellu si seen émission bi di jotaay mag yi ñu amoon mbégte waxoon leen ko dinaa leen ko dellu si waatal ànd ak Seydi Mouhamadou Sassar Atijani ziyaare ko di ko bëggee nag yàgg naa kaa wax boroom xam-xam yi bari nañu lool waaye moom mi bokk na ci ñuy naw bokk na ci ñuy nangul xam bokk na tamit ci ñi nga xam ne bàyyi na leen xel kon suñu làmmiñ bi yàlla mu doon cap ci yow dana yàlla dëgëral la bu meen émission bi passé ñu bari kontaan nañ ñu bari bég nañ nag waaye ba tabaarakallah ñu bari nag réagir nañu ci question yi waroon ko mën a yeggee tey ci Seydi mu Sassa Atijani yi ñu dellu si waat tey fii ànd ko yéen ci même heure même waxtu même bis kon Mahamadou Sassa Atijani yi ñoo ngi leen nuyu auzu billahi samil alim mina seytaani rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulullahi wa radiyallahu an saaxibil xatmiyati wal katmiyati abil xabaas ahmed ibnu mohamed alzalimi atijaani wa an jami asxaabihi wa muxaddimaatihi wa axbaa'ihi ajmaina wa baaxdu fa tabaarakallah yow saas ñu ngi lay delloo nuyoo di kontaan bu baax a baax si seet si bi ñu seet si waat mm. ñu ngi nuyu mbokk jullit yépp ni leen daa nuyoo si fii ñu leen daa nuyoo si kiñ leen daa nuyoo di Seydi Seex Ahmada Tijaani radiyallahu anhu ñoo ngi jiital ci nuyoo bi suñu xalifa général Baye Abdou Aziz Sarr yàlla na yàlla yokk fanam wéral ay cëram mook bépp njabootu Ansar ak fépp fu taalibe Medina Sarr nekk rek ñoo ngi lay nuyu di nuyu ba tey xalifa général de Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour di ko jox nuyoo bi rek mu joxal ñu ko fépp fu xalifa général nekk noonu la ñuy nuyoo ñëpp rek di dem ba dëkk bu sell ba di nuyu sëriñ Mountakha Mbacké yal yàlla yàggal ko fi yàlla yàlla saxal ko fi di nuyu mbokk yëpp rek di nuyu suñu waajur bu jigéen ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax ak suñu yaay soxna Nogoy Njaay yow saas di kontaan bu baax a baax comme li nga wax rek yàlla def na émission bi keroog ñoo ko commencé woon ak yéen ñoo ko ñoo leen ko diggan te li olof di wax digga bor la te nag ñu bëgg ñëw si waxtaane lenn si Seydina seex comme li ma la wax Seydina seex rek géej la man nan nan sac bis ñuy tourné sama émission baat mi jeex te lu toll ni kaas sax doo ko tàng si géej googu ndax moom moo toll noonu fépp foo làmb rek da nga ko fay fekk la woykat ba waxan rek mm. maxaasin ahlullaahi mm. la zakka jammatun mm. wa ma xasabatu sabxi ilaa li boo xoolee sëy naa seex góor yàlla yi kenn wérantewut ne ñoom ñëpp am nañ ak may ndax ku si nekk rek boo geesoo gees li ko suñ boroom may waaye nag bantab raw ba sëy naa seex moo ko jël te ba mu ko jëlee ba tey keneen du ko mën a tey jël ba ilaa yawmil haza kon ñoo ngi yemale foofu suñu nuyoo bi. Mm-hmm. di jël nuyoo bi nag di ko teg si suñu loxo kilifa. Mm-hmm. suñu mag suñu sëriñ. Mm-hmm. sëñ Mouhamed Sarr Tidiane yi mu daal ñu koy yóbbaaleel képp rek koo xam ne si njaboot ak lan Sarr nekk. suñu doom bàyyeeg suñu doom ndeyeeg ñëpp rek. ñoo ngi leen di nuyu yaa imaam. ñu yemandi foofu. yooyu li ñu la seetloo sa nuyoo da si njaboot gi lu bare bare bare bare da ngay si njaboot gi lu bare bare da ngay nuyu tante yi nuyu bàjjen yi nuyu te mënoon nga jox kenn rek mu nuyoo mais dafa mel ni yow li alquran waxoon ni daga de euh, mbokk àllu yàlla la dafa mel ni yow da dégg aay boobu lu demee noonu yow li nga insisté dafa bari trop lu waral loolu. waaw xam nga boo xoolee nuyoo moom li naan daañu dajut suuf sax. Mm-hmm. waaw rek faaw nga daanu bërëngu tuuti rek. Mm-hmm. te nit ki am nañ la suñu borom di def. Mm-hmm. donte doo mën a ku si nekk jox ko loxo rek. waaye dangay ngay jël rek jox ko kenn kooku daal koy séddaleel. te nit. waxuma sax boo baree ay mbokk ndax àdduna bi ñun ñëpp ay mbokk la. bépp julli rek ko ashadu an laa ilaaha illallaah rek sa mbokk la. waaye yàlla bu la séddalee si famille bu yaatu. muy côté kër ndey. di côté kër baay. booy liim sax doo mën a liim ñëpp. te côté kër ndey gi rek doomu nijaay rek yaakaar na doona xaw a sakkan. ku si mel ni ñoom Ndiaga ñoom Baye Dieng ak ñoom Ousseynou doon doonoo bara ah, bari ah. ñoom Aline Diaw ba Mbour. Ah. ak Ndonga Ndiaye ba Brésil. ñooñu rek tey boo leen bëgg na nuyu. Ah. émission fi lay yem. Ah. moo tax doon côté kër baay gi sax bariwul. waaye côté kër ndey dafa bari. moo tax doo. macha allah préféré pour nuyu ñëpp sax. waaye comme ni ma la ko waxee rek. Moustapha Sarr ak Tidjani moom. boo bëggee xam. Ah. man nga ne moom mooy mbokkam Sénégal. Ah. ndax boo génnee. Ah. képp koo dajal ku baax. sama mbokk. waaw ndax di euh, al jullit sax loolu yéen bi saa sala moo ko wax. al muslimuuna ixwatul muslim. sama muslim waaw waxaat na ci hadis boo xamante ne nii euh, innal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum kon ki wax laa ilaha illa rek sax moo ko kon tabarakallahu loolu lu ñu mën a ñu mën a dégg la waaye sëñ Mouhamadou Sarr keroog ñu newoon ci biir waxtaan bi nekk ci ponkal moom góor yàlla boobu di Cheikh na Ahmed Tijani Chérif Eh, ni ko borom ko ni ko woykat yi waxee rek kenn ku ne wax nga ci góor yàlla yëpp wax na ci sama maam Serigne Babacar wax na ni kullu eh, kullu shuyuxin fa xaw la xaqibul farida min xatal xeybi in raba ala kon bàyyiwul kenn hmm. day waxee ni jël na yet bi ba jiitu ñëpp hmm. loolu mbiru suñu borom la innal fadal bi yadaahi man yashaa keroog wax nga fuñ jaar hmm. wax nga ñu ay maamam wax ñu yaayam wax ñu ki nga xam ni moo doon ñaari soxnam kenn ku ne ñaar ñi am na jiitu ñaar ñi am na ko mu jikkoon am ku tudd Aïcha mm-hmm. après da ko bàyyi à l'âge de douze ans mm-hmm. dugg ci yoonu yàlla bi mm-hmm. kon ni ngi indee ñaar yëpp dem nga ba ci biir nag fi nga toll woon mooy fi nga xam ne fa la gisanteeg maamam muy Timizaan bu suma juumul àgguñ foofu waaw ñoo ngi yëf Seydina Cheikh bi muy am vingt cinq ans vingt quatre ans foofu lañ. boobu ne woon Tilmisaan. non boobu boobu moo ngi Tilmisaan. gisee too gisee ko. waaw waaw waaw moom laa la wax. xam nga keroog ni ñu ngi biir til misaan mhm. foofu la war a gisee ak maamam rasulullah doon di gisee gula rasul maam rasulullah waaye fa la war a gisee ak moom fi ngay waxee nag waaye yaa ngi doon yaa ngi woon juste si fi nga xam ne mi ngi doon jël tarixa yi fi mu doon jël tarixa yi nga toll boo commencé doon lépp imam kurdi yi mhm. nu mu demee ak moom waaw boo xoolee Seydina Cheikh radiallahu anhu ñooñu commencé woon ak moom ba mu nekkee leer ñëwoon ak moom bi ko suñu borom indee jamono si ñu baax ñu ngi ko jàllale ñëpp ba bi mu juddoo ba bi mu jàngi alxuraan si njàngin mu yéeme ba ni mu jàngi xam-xam ba ni mu de vingt et un si la takk soxna âge de quinze ans si ginnaaw sax si lañ ko njëkk a may seen soxna Aïssa ba mu demee nag ba takk deuxième femme troisième femme mm. ba dem ba àdduna ubbeeku si moom mm. ba xam ne léegi jug pour topp góor yàlla mi moo ko dese mm. moom la la ibnu baaba dox ne summa irtafaat immatu haaliya ila tibaa saadati suufiya fa jaala fi talab ahlillahi mm. aadadu bi abidin awaahu mm. booba nag ba mu demee ba peeg lu bëri mm. ne léegi daal leen moo fi des mag ñi nga xam ne jiitu nañ ko tànk yi aw moom mu jim fa aw boobu nag si la toog xam ne lii suñ borom wax rek yaa ayyuhal lazina amanu ittaqullaha wabta'u ilayhi wasila yow mi bëgg a ñëw si man jàppal wasila wasila moom boo ko déggee mooy lépp lu lay jokkaleeg mbir ma nga bëgg rek. waaw exactement foofu laa doon ñëw nag. wasiila boobu gaa yi duñ ko interprété dafa bari. am ñoo xam ne gëmuñu ni sëriñ la. bu la war a mën a yóbbu ci yàlla. yow ni looy wax ci ñoom avant ngay àggoon nii. dama leen di si benn côté waaye dama leen di bañaat si benn côté. loolu mun na nekk oustaz nangul fii bañal fii. waaw mën naa nekk xam naa di nga jaaxle nag. ah di la kay loolu ma boo xoolee tax ma leen di nungul si benn côté. Hmm. pour gis góor yàlla bu la mën a àggal si yàlla dafa xaw a jafe waaye nag dama leen nungul si benn côté segam suñu borom nee na wutal wasila rek wasila du ki lay jël loxo ak loxo yóbbu la suñu borom. am na xam dañ ko dañ ko dañ ko firee sax oto bi ngay dugg sax pour mu yóbbu la sa marché ba. lépp wasila la. waaw tey téléphone bi ngay foofu nag laa déggee ma tax ma am ñoo xam ne gëmuñu ni wasila boobu sëriñ la. ah wasila boo ko bëggee am sëriñ ma sëriñ nooy def. Hmm. waaye kat ba dene mais ñi gëmul ni wasila sëriñ la laa la wax. wasila sëriñ ñooñu seen dégg-dégg dañ leen koy nungul. waaw xam a dañ ne. Hmm. mataa saa xel ma. xal xala inkaar nit ki li nga xam bu baree tuuti rek say weddi weddi day néew waaye képp koo gis weddi weddi dem bari rek amaan li maam Seydi Hadji Malick wax rek àll bi moom moo guddut mm. te nit ki am na loo xam ne fekk ko si xam-xam bul weddi kenn si xam-xam mm. waaye nag sëriñ bu baax boo ko bëggee am mm. da ngay dem na la waykat boo wax ne yashabu sayxan xaarifan lil masaalik yatahi fi tarihi mahaalik wa yusfiru laaha isa raaw wa yusil abdu ilaa mawlaa mm-hmm. critères yooyu ma la wax sa sëriñ mm-hmm. képp koo ko gisut matu sa sëriñ wax ko ci olof bi dégg ko xam nga waykat bi dane la mm-hmm. boo bëggee ànd ak sëriñ yaa Oustaz Diarra ba sa njëkk na xam ci yoonu suñ borom koo xam ne moo lay wax alxuraan ak sunna ba nga mën a àgg fi sa yoonu borom mooy première deuxième ba mooy sëriñ bi nga xam ne bépp jafe-jafe boo nekk mu man la see xettali man la orienté waat mm. comme ni Seydina Seex doon def mm. bokk na si lim njëkk a garanté wu maamam mm. xam naa bis dina ñëw émission di leen sa àgg mm-hmm. koo xam ne ku day fekk ku jàgg mooy ku def naka sudul noonu ku mel ni Abdou Diop mu jëlaat la indiwaat la si biir tarixa bi troisième ba mooy sëriñ bi nga xam ne wóor na leen ku ragal yàlla la ba boo ko gisee yow li ngay njëkk a réagir rek sa xel danaan yar si suñu borom quatrième bi nag mooy ka nga xam ne da lay mën a jël def la na ma sama sëriñ ba def di Seydi Mouhamadou Ñàkkur Sarr mm. ibnu Sëriñ Moussa ibnu Maam Ñàkkur mag ma koo xam ne bis bu la nàndale Seydina Seex mm. nga am leer Seydina Seex te ñun moo ñu nàndal Seydina Seex waaye critères yooyu nag fekk dajewul sëriñ rek mm. mag ngi nee na sëriñ boobu day manqué te sëriñ boobu nag mooy Seydina Seex moo tax ma ne la Seydina Seex Ahmadou Tidiane haza sayil asimu lam yusmax samaanu bi misliho ilaa fil critères yooyu nag moo daje Seyna Seex ba nga xam ni amut benn góor yàlla lu bokk sa ña ko jiitu comme na ko woykat ba waxee rek fa wallahi yaaw saas maa ngi giñ si yàlla ne maa an jabat xawdu minal xawaani fii kulli mamada mina samaani ah, sa dina hmm? ah, ah, maa ngi jégalu kamis li ummi seex na tijaani hmm. haysatu tahiru hasani wa mali hawayat fahran kama laha sayhul ulama comme na ko waykat bi wax rek ba bayit bay jeexal yaakaar naa ma juumut fa mujj mu ne lawaati jeex bi muxtaari wa sahbihi wal ashaabi aw axyaari mu maa ngi giñ si yàlla ne amul benn jongoma gu fi indi ku mel ni Seydina Cheikh Ahmada Tidiane ñu ne ko tax nga wax ko te bi ñëw na fi ak saxaaba yi mm. mooy leen ndera boog yaayu yonente beeg ak saxaaba ak yonente bi ko jiitu mm. waaye nag ku mel ni Seydina Cheikh Ahmada Tidiane mm. comme la ko maam Khalifa Niass waxaan rek si lu passé ak jamono ji ñuy ñëw nit du amati ku mel ni moom ndax suñu boroom moom moo wax maamam mu garanteel ko ko kon léegi ñëw léegi ci euh, jàkkaarloo yu a dajeek ponkal yi nga xam ni fekk nañu tin misaan ñu bëgg rek nga waxuñu seen jaar-jaar mm. ah, kenn ku ne fi mu fi mu jaar ba yow mm. ba ba maamam Seydina Mohamed ni cëpp ci kanam waaw boo xoolee Seydina Seex comme li ma la wax bi ñu comme tarixatul xaadir dafay yàgg mm. si Seyd Abdou Xaadir Jeylaani wax naa la moom si yonente bi la askan Seydina Seex dafa jóg tarixatul xaadir la njëkk a jàpp tarixatul xaadir ba mu koy jàpp dafa aman lu tax mu jàpp Seydina Seex li ma la wax bëggut a nekk quatrième bëggut a nekk troisième. Mm. bëggut a nekk deuxième. Mm. première la bëgg a nekk te dina ko nekk. Mm. dafa jàpp tarixatul xaadar. si Abdou Xaadir Jeelaani. boobu nag ba mu ko jàppee jox na ko lu bëri axtaaw asraaran wala walaakin na lam yasal xutbaani boobu nag première la bëggan waaye jàpp na tarixa bi moo ngi cherché ba tey première bi amu ko. tarix Abdou Xaadir Jeelaani jiite na fi tarix Cheikh Tidiane Oumar 700. 700 Seydi Abdou Xaadir moom jiitu na Cheikh Oumar 700. Serap Xar Jalaani non boo xoolee moom diir bi mu génn jam ak sëy naa diir bi mu jëm ñëw na. Mm. moo ngi toll si juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent. du 700. non non 500 la. 500 589. mooy juróomi téeméer at ak juróom-ñetti fukk. ak juróom-ñeent. moom diir bi mu génnee. Mm. ak diir bu sëy naa sax ñëwee. mu jël tarixu xaadira. ak ah, jël mm. si lay cherché première ba tey nag gisu ko. après mu jàpp tarixatu ah Seydou Mohamed Nasir. góor yàlla la woon boo jàngee histoire rek. Mm-hmm. di nga gis lim def si yoonu tasawuf. Mm-hmm. kooku nag axtaaw asraaran kasiran. Mm-hmm. wala na nag lam yesal xutbaani. boobu sëy naa sax maqaamu xutbaani la doon seet si. fekk maqaam boobu sax am na yeneen yu ko féete kaw. kaw te bis bu ñëwee si maqaam sëy seex. si nga xam ne sëy seex kenn du moom. boobu nag si la jàpp tarixatu naasire di si liggéey di si liggéey waaye na première gi muy seet sa ba tey. gisagu ko wala kin na lam yeesal xutbaani mm. mu jëlaat beneen tarixa bu naan tarixatu xamaariyu mm. si Seydi Mouhamed bun Ahmed al xamaariyu mm. kooku nag axtaaw asmaan kasiran wala kin na lam yeesal xutbaani kooku nag jox na ko ay turu yàlla façon turu yàlla yu nekk sëy naa seex di ko liggéey di ci def itam yëpp waaye nag wala kin na lam yeesal xutbaani sëy naa seex boo xoolee moo ngi liggéey waaye première gi muy te ba tey gisagu sa la jógee jàpp na ñaar si li ma la ñett xaadiriya hmm. ansaare ak xamaar yi xamaar hmm. muy ñett hmm. si la jàpp tarixatu malat yi di seyd abdourahman al asxari koo xam jàpp tarixa bu naan tawaasi wala malat yi boo si wax rek mën naa dem koo xam nag axtaaw asmaan kasiran wala kinna lam yesal xutbaani koo xam jox na seen naa seex def si comme li ñëpp war a def tarixa xam sart yi nga daat koy jëfe ndax lépp lu amul sart rek doxut sëy naa sax si ko jàppe ba tëjeeg benn góor yàlla bu naan abdourahman al azhari kooku nag moo ko jox tarixatu xalwat xam ne tarixa boobu bis ba si biir naa la si expliqué lu bëri ndax sëy naa seex jotoon na ko jàpp ba jotoon koo mayee sax ba doon ko liggéey kooku nag moo jox sëy naa seex tarixatu xalwat ba jaat so ijaazaal may ko si ndigal léegi sëy naa seex mën na koo joxe au lieu que mën na koo liggéey sëy naa seex bi mu defee noonu toog rek boobu lii ma lay wax nii nag xale bu ndaw la. mu mm-hmm. nga am à l'âge de trente quatre ans trente cinq ans. Mm-hmm. sëy naa see toog tilmisaan ba si yàgg. Mm-hmm. mu ne man kat juróomi ponk yi li ma lay wax lépp rek si gisee gi ma war a gisee jéeg maam. mu ne juróomi ponk yi ma suñ borom digal kaa di matale naa ko benn bi des na te mooy aji màkka à l'âge de trente six ans rek sëy naa see wax toog tilmisaan ba si yàgg xelam toog ne man war naa aji màkka. mu jóge Tilmisaan ne day siyaare ji maam sallallahu alayhi wa si la dem bi muy aj gi nag dafa yéeme ndax aj gi nekku ne aj gi nga xam senegal jug rek dagg sa bee jël sa vol dem def direct am 15 jours rek ñu bisuwaat sëy seex aj gi un la def si yoon avant mi aj mag ndax daa am lu mu doon seet si yoon bi ndax am na ay góor yàlla yu bëri ñun ko signalé woon ku si mel Seydou Mouhamadou Kourdi ku si mel Abdou Azzamat bari na ay góor yàlla mu bëgg leen a gisaale nag pour amaal occasion bala moo ñëwaat mu toog tilmisaan yi rek jug jël warukaayam jël sëricaam yëpp rek war si waruwaayam na day dem màkka bi mu déparé nag comme ñu tënk ko rek ndax temps xam naa du ko du si xaj duñ bëgg kii rek duñ mën a tudd yëpp mhm. waaye ñu tënkal la ko rek ba yeneen ñëwaat sëy naa seex départ dëkk bu naan aswaa wi sa la njëkk a wàcc Seyd Abdourahmane kooku nag moo ko ijaasa si tarixatu xalwatin naa Seex jóge na dëkk boobu jël ay bagaasam jamaat Màkka di dox di dox di dox ba ñëw tinis jii nii tey si benn góor yàlla bu màgg bu naan Abdou Azamat Abdourahman Azamat Araqawi ki nga xam ne kenn du werante góor yàllam moom mi nga xam ne képp kuy natt góor yàlla boo sees moom taxaw Seydina Seex dafa ak si moom sax na fa at di ko tarbiyu di wut si moom di jaf jariñoo si moom sëy naa seex jóge na si góor yàlla googu ñu tënk ko de xam naa du mën a wax si ñu jaar ñëpp ba mu fa jógee di dem di dem di dem di dem dem na dëkk bu naan salaasa ak dëkk yi mu romb bari na ba si la di dem ba si yàgg wàcc Irak gii ni tey nga xam ne sëriñam bu mag boobu sëriñ Mouhamadul Kurdiyu foofu la dëkkan Seydou Mouhamadou Kourdi ma wax la lu yéeme yaaw saas si diggante ma Seyna Seex dafa génn rek ne jàkk Seyna Seex seen ñeenti bët di daje xam nga lan la ko wax anta mahbubu indallaahi fi dunya wal aaxira dana ko jàkk rek gis leer gis Seyna Seex na ko yow ku ñu sopp nga sa borom moo xam si àdduna la moo xam fa la ñu jëm si àllaaxira mm-hmm. yémut foofu rek dana ko mm-hmm. maa mat la bu ko yow góor gu taaru gi yow mii lan mooy sàkkuteef Seydina Seex lan la ko wax ah mm-hmm. al xusma maqaam bi naa maqaamu xutbaani moom laa bëgg mm-hmm. xam nga Seydi Mouhamadou Kouri loolu la lan la ko mm-hmm. làkka ak sara minha maqaam maqaam bi naa maqaamu xutbaani yow maqaam yi la suñu borom dencal ëpp nga ko sax te li tax ma ne ëpp na ko bis buñ duggee si maqaama yi ko suñu borom joxal si nga xam ne Seydina Cheikh maqaama xutbaanee sax romb na foofu hmm. waaye bis buñ duggee si maqaama yi ñu koy xam Seydina Cheikh góor googu moo ko jox salaatul fatiha moom Mouhamadou Kourdi moomu moo tax ñu si bëri di dee nga salaatul fatiha kon kon salaatul fatiha la njëkk ñëw jiitu na Cheikh Seydina Cheikh jiitu na ko fi xam nga salaatul fatiha lan mooy aslu bi hmm. xam naa duñ ko mën a tartib na waaye nga nga nga si ma ñamal si Mouhamadul Kurdi googu ku naan Moustapha Afnad yi moo ko jox bari na ba si Seyna Alin karamallahu wajha salaatul fatiha yàlla moom moo ko wàcce si li ñu mag ñi jàngal ak euh, si fi mu jaar di rogalaat ba si Seydi Mouhamadul Kurdi yi moom moo njëkk a jox Seyna Seex salaatul fatiha waaye nag booba nag salaatul fatiha bi kan moo moo moomoon borom kan moo ko moom sëy naa seex xam nga yenn saa yi nga jóge fii yaaw saas di dem sa dëkk bu sell booba di dagana mm-hmm. imaam Moussa Diop jël yóbbante jox la ne la boo àggee nag mu ko joxal sama waaju diw mm-hmm. waaye moom moo yóbbante bi boo àggee da ngay jékkati rek ne mm-hmm. sama waaju diw imaam Moussa Diop moo la ko jox noonu nag la Mouhamadul Kurdi yi defan Seydina Seex radiyallahu anhu moom la Cheikh Omar Fouti defan Alfahima yore wala waaw yaa ngi may ngir moom la maam Seydou Omar Fouti defal Seydi Hadji Malick ndax yóbbante bu mag ba kan lañ ko jox ban ko koy jox ganewul àdduna sax te ba mu ñëwee dañ ko koo yóbbante bii maa ngi koy jox góor ga nga xam ne bu ñëwee fépp fu sama jaax ji àggutan moom dina fa àggale tarixa Seydina Seex te tey fépp si Sénégal boo xëyee lan ngay dégg laajum suba ah. laajum ngoon waaw ah, léegi bu bu ñu toppee waxtaan bi mën nañu xaawaabal ñu dellu si waat tuuti rek ci Mouhamadul Kurdi bu muy jox saatul Fatiha bi seen naa Cheikh Cheikh na waaw Mouhamadul Kurdi comme li ma la wax dafa ne jàkk rek seen naa xam ne kii nii hmm. moom moom lii ma yor hmm. mun ne ko lan ngay sa saaku téef mu ne ko maqaamatul xutbaane xutbaane hmm. mu ne ko yow sa am am sax romb na foofu ndax seen naa Cheikh maqaam yi ko suñu borom defal dafa bari bari na. te buñ si duggee rek di ko xam si kàttan suñu borom. mu jël salaatul fatiha daal ko koy jox ak aslu bi ni mu demee ba si Seyna Ali. Seyna Seex wàcc ko fa ndax Seyna Seex ñaari yoon la gisee góor googu benn bi laa la ñamalagul. Mm-hmm. en attendant Mouhamed Kourdi ñaari yoon la gisee mm-hmm. jox rek salaatul mm-hmm. waaye joxu ko beneen tarixa. Seyna lii ma la wax rek gisee gut ak maamam. c'est la bàyyi Mouhamadul Kourdi daal di jubalaat Màkka. di doxaat. mu ay bagaasam bi muy am trente cinq cent si la ëssi màkka wasala màkka bi saxari si bi saxari suwal ba mu ñëwee màkka nag li ma lay wax dafa am lu yéeme lu am màkka si ñëw googu mm-hmm. Seydina Seex ba mu ñëwee màkka ëssi na màkka weeru suwal aji rek dese ko ba mu ñëwee rek deful direct rek sa kaab nga def aji def ay tawaafam ak yu demee noonu ba mu ko defee pare rek dafa toog suñu borom xamal ko ne ko am na ku nekk si dëkk bi koo xam ne moom mooy xutbu zaman yaa ko Seydou Mohamed bun Abdoulaye Hindi waaye nag li ma lay wax rek li gën a yéeme Seydina Seex dafa jokkalante góor googu te ñoom ba léegi seen bët tegoowu tegoowu dafa jël leetar fa kataba sayhi risalatan ilayhi li yasala sirran min asraar yi Seydina Seex dafa jël birgam bind ko woo bëkk ne góor googu ndax góor gi dafa tollan si yàlla fam ne kenn mënu koo gis Seyna Seex jël bigam daal koy jox bëkk néeg bi na ko joxal ma ko Seydou Mouhamadou Abdoulaye Hindi bëkk néeg bi daal di jël leetar bi jox ko góor gi góor gi toog liir leetar bi moom tamit jëlaat bigam daal koy tontuwaat daal koy jox ne ko anta waa xelmi wa asraari wa mawaahibi wa anwaari yow waxuma sax li nga ma laaj nii waaye yow Seydina Seex yaay doon sama xam-xam yaay doon sama leer. lan la la ko la xam nga seex lan la ko laaj. Hmm. mbooleem loo xam ne góor gi làmboo na ko. muy wàllu xam-xam muy wàllu ijaaba muy wàllu lépp loo xam ne lu baax la loo xam ne suñu borom defal na ko góor googu sëy naa seex am na audace pour laaj ko góor googu. Hmm. waaye góor gi nekku na sax moom moo ko moom. Hmm. ki moom mbir mi moom mooy jël si mbir mi. foofu li ñuy wax rek mata dëgg doomu aadama sax. dal na. mbindaan mi ki doon liggéeyal. góor góor gi. ba bi ko naa Seex laajee góor gi loolu Seyna Seex góor gi jël bagage yi daal koy jox xam na la mbindaan mi def dem jox Seyna Seex yóbbante pare ñëwaat si góor gi commencé di xulóog moom rek si ni ko waxee xam na la ko yaa a saydi la maa saalika maa xaan ni xaddamtu ko yow góor gi ndax yow kii doxandeem la dafay ñëw démb rek laaj la nga jël li nga yoroon lépp jox ko te man mi sa mbindaan la hmm. liggéeyal naa ay ati at plus de vingt ans nii maa ngi lay liggéeyal hmm. di dox say service di la xëyal di la gonto waaye nag góor gi mat na palaasam xam nga la ko góor gi wax hmm. lay sal amri bil ixtiyaar yi bal wali saalikat amru min amrillah walaw kaana li amri la nafaxta bi zaaka wala di xablal ma jeexaka xam nga góor gi lan la ko wax yow lii nga may laaj du sama mbir du sa mbir lii mbiram suñ boroom la suñ borom nag mbiram moom mooy tànn ku ko neex mu jox ko ndax amaana nga bëgg sa waay mel ni waaye keneen te du mel ni waaye keneen xool góor gi maano gi maano xam ne lii mu yor moomu ko kiyee moo ko moom mu ne ko man waxuma sax yow waaye lii bu fekkee ne sama moom téef la duma la ko jox du ma ko jox ma sàmba sama doom laa koy jox avant ngay wàcc sa it yëpp di ñëw si man jël naa ko ba jox ko sama doom foofu nag li gën a yéeme si mbir mi sax la borom Ibnu Baaba di wax fan tafaxa sayhi bihi mukaatiban walam tax baynahuma mukaatiban hmm. sëy naa sax jaral na si góor gi te ñoom ñaar sax gisante ci si bindante hmm. si leen toll hmm. sëy naa se jël na li si góor gi ba góor gi sax informé ne ko si ñu ko ñu def si bereef rek ndax temps bi ak yu demee njëkkante temps ak ñoom ñaar ay kàddu yan waxtaanteeg ndax waxtaan nañ si yu bëri ñu xamalante si yu bëri ba góoru sax dem na ba xamal ko ne ko bi sàng ma su àggee si laay génn àdduna sëy naa seex jóge na sa góor ga def na ay ajam léegi def na tawaaf def na safa ak maro sànni na jamra xam nga lan moo si des dem siyaare ca maamam muy sallallahu alayhi wa naa seex ba siyaare ca maamam aw saa gën a yéeme dana tëdd si xabru bi rek am góor yàlla gu mag ku mu fa fekk góor yàlla gi nag xam na ne kii nii moom moom moom mooy sangu jamono moom amul sikki sàkka te li góor yàlla di def rek góor yàlla en bu gisee ndaw xam ne kii nii am na lu ko suñu borom dëxëñal day profité si moom si li naan da ciy dugal loo si yaram ndax góor yàlla dafa day gis loo xam ne kenn du ko gis bu gisee ne yow sax jar yow mii mhm. am na foo xam ne ëllëg si biir mhm. nga fa àggale mbir mi te man àgguma ko mhm. moom day profité jël si lim yoon jox la pour yàlla gën a noonu la dafa sëy naa naan Abdou Rahman dana sëy xam nga lan la ko njëkk a wax indi salaasar ayaamin li as boo ko ko sëb xatan taami ko sàkkuma si yow xam nga lan laa dama la koy ñaan ngir yàlla rek saxaar si man ñetti fan rek ma cuub la cuub goo xam ne cuub gu ma sëkk la waaye sëy naa seex booba xam na lu ëpp loolu hmm. hmm? nunguwul faxtasar li sëy naa seex daal na koy gànt li tax mu gànt ko nag moo ko xam waaye nag bi mu ko gàntoo yéemul nag si gàntul ko lépp sax na sa góor ga góor ga yëkkati ay secret yu si bëri daal ko koy jox su mel ne xesbul bahri bii ñuy laazim góor ga moo ko ko jox lu si mel ni wati sifatu góor gu moo ko ko jox lu si mel ni dalaa'ilu xayraat góor gi moo ko ko jox bari na ay secret lu mel ne durul axla yoo xam ne yii yëpp si asxaabu awraadu tarixa la góor gi moo ko ko ba pare nag daa ne ko anta xutbul jaamix wala xaws naafix ansil ifaadatul xalqi yi yow léegi wàccal léegi nga daal di jariñ mbindéefi yow yaa ngi xettali mbindeef yow yaay xutbu bu mag bi nga xam ne moo nekk si kaw suuf booba nag la maam Khalifa Niass moom mi nga xam ne ah boo bëggee xam sëñ naa seex moo borom barakaare ba sa tiwaawam ji la yor seen mbind la ne xas xalimaam ne xawsul bariyati miftaaxul wilaayati seexu na tijaan misbaaxu dujoonaati mumiidu aqtaabi awlilaahi ajmayna minhum fitoo li arbaabi fotoaati loxo infiraaru bi asraaru yaxuusu biha bayn alxalaahi fi axla mahamati habbaahu taaha bi maa yoxti ahadun min alkamaali li arbaabu wilaayaati ak topp ko na xas na xaside bay dem di dem di dem xam ne bu ñu toppee xaside boobu rek duñ fi jóge ndax li ko góor yàlla gi ne ko yow yaay xettali mbindeef yaa saa ñu dem ba tey hmm? ñu dem hmm. ñu Seex ba tey gisagul maamam de. ba tey gisagul maamam yaa ngi ci Medina moo tax man bi ma lay déglu rek. maa ngi si Medina mun a war hmm. léegi nag comme la maam waxaan ne képp ku aj te siyaar siw ma damaa becc ngal ndax liiw ma léegi jóge na Medina mun a war a. mu hmm, ngi Medina mu ngi Medina jóge na màkk léegi. ajam mat na jóge na Medina léegi dafa war a ñibbisiwaat hmm. ndax képp ku dem si barab. xanaa di nga ñibbisiwaat. waaw fan la gisee ak maam ko. waaw si biir ñibbisiwaat gis la gisee ak maam. si biir Medina wala mu génne Medina. diggante Tilmisaan gi nga xam ne foofu lañ jóge woon dem romb ay dëkk Hiraa gi nga xam ne si la ko Mouhamadul Kurdi Muxaddamaan foofu la njëkk a gisee ak kon waaye du biir na Munawara la gisee ak maamam. du biir si ni ñu ko mën a waxee. dafay naa seex daaw teqali ko maamam. waaw loolu lépp zahir dafa am zahir waaw bu ñu waxee seen teg maam ci mooy ci zahir ndax bu ñu waxee ni cheikh fu mu tolloo ci maam daanaka moom mooy maam maam mooy moom ci lu ñu téere yi jàngal bañ naka bu bu bu cheikh bu sax moom mooy ñëw mhm. su maam bu ñëwul moom lay yebal kay ko ne da nga yebal sa morom du ma dugg ci xis yooyu ndax yaa ngi fi toog mhm. waaye kon ci Irak la njëkk di seen teg maam waaw ndax ba mu jëlee jógee mën na mën a war day ñibbi soir day defal yoon wi mu rek fi la jaara hmm. si Seydou Abdou Zaman hmm. jaar na fa nga xam ne wax na góor góor yàlla woon Seydina ne am na si moom at hmm. jóge fa ñëwaat na dëkk boobu ñu naan Irak si Mouhamadou Kourdi yu Mouhamadou Kourdi ba Seydina Cheikh di dem boobu mooy deuxième ñëwaat si Mouhamadou boobu mooy deuxième waaw foofu nag fa la fa la mbir yi feeñ foofu rek sa la mbir yi tàcc si lañuy waxee ni Cheikh jël na jël na jël na tarixatu xalwati ñaari yoon non xal xalul keneen moo ko joon waaw mais ñaari yoon la ko jël ñaari yoon la ko jël waaw mooy li ma la wax jël bii nii ko see mu bu njëkk ba mooy jël mais bu ko ñaari yoon xam nga looy jël ñaari yoon mooy nga ko wala nga bàyyi ko kële ko koo jox kii mu xaddamaan bu fekkee da koy jël ba muy dem si la ko koy jox waaye sëy naa sax ba muy dem moo ngi tarixatu xalwati bu muy dëpp dañ ko mu xaddamaan kon si deuxièmement boobu la jàkkaarloo ko yi la jàkkaarloo kudd yi wala fa maam fekk fa la ko ma am fekk ndax bin jàkkaarloog Mouhamadul Kurdi yu danoo saafante ak la aw la am lépp rek sa nan doon jëflantee Mouhamadul Kurdi yëkkati mu xasan uh-huh. la ko njëkk a yëkkati jox ko mm. yaa ngi miin nga ko yaa ngi koy def ci tarixa bi <laughs> daal koy daal koy lijaasal tarixatu xalwat lijaasa boobu nag moom la mam Seydi Mal di wax ne mm. waa baax damaa xaddamahul kurdiyu mm. raa nabiel Mustafa safiyu xaala mm. la minat li maxlun alayka min masaayi tarixi anna murabbi wa anta waladi wa sayfuka abara kullu musnadin wadruk jami ma xasa xataa ma waxita min xayri xalwatin wala ixtisaarin subhaana rabbi daayimal kamaali booba sele ko bu maam waaw c'est le maam Seydi Hadji Malick wax ne mu Mouhamadul Kurdi mu xaddamale sa la giseeg maamam nag maam ne ko léegi daal li fi am yow seex leen laa bëgg nga def ko hmm? man maay sa sëriñ wa sayxuka abaru kulu mos te sëriñ bi nga am bépp wéeruwaay nga gis moom moo gën a dëgg ak ginnaaw Seydina Mohamed kuy wër foo làqatu bu agsi ba si ginnaawam am nga kii kaaraange sa la ko waxaat tamit ne ko amul benn mbindeef si kaw suuf mm. bu la mën a ndamu sa kaw wala mu lay jaar affaire mm. kon léegi leen dafi nekk mm. bàyyil tarixa ya nga jàppan tarixa bi ma lay jox laajum suba laasim ngoon ah ma am laaj ndaw moo bëgg rek lu xaw a tëj tëj sama mm-hmm. euh, tax ñi mu jaar mm-hmm. ko ci jox mm-hmm. laaju fa garanti wala na ci ko waxee jaar na Mouhamed Kourdi jaar na ci euh, Abdoulaye euh, Anbal Abdoulaye Nasir an Nasir jaar na ci Mouhamed Abdoulaye Anbal mhm. ah ñooñu mu jaar ñëpp amul kenn ku ci Cheikh laaj garanti mhm. mais mu ñëw ba ci maam Rasul mu lay garanti lu waral loolu ah, xam nga boo xoolee garanti benn lay am te boroom garanti bi kenn la te kenn la ko war a garanti kon kon xamoon nañu ñee ñee ñee waruñu ko garanti kenn dégguma ne ñoom ñëpp jëflante gi ñu doon jëflante Seydina Cheikh mm-hmm. nekku na ñoom dañ ko doon def waaye dañ doon def tabarok Seydina Cheikh ñoom dañ doon barkeelu Seydina Cheikh ah, nga xam ne ne mm-hmm. mbir mi benn la si mm-hmm. loxob kenn la nekk te si loxob kenn la koy teg te loxo boobu nag moom mooy Seydina Cheikh radiyallahu anhu boobu nag Seydina Cheikh jóge na si Mouhamadou Kourdi li gën a yéeme ñibbisi na léegi tilmisaan bi mu dëkkan avant muy assisté misaan sax jaar na si ay dëkk xam naa duñ si mën a jaar benn par benn ndax temps mm. dëkk bu naan taxarut say naase nekk na fa. Mm. ba bi xam nga ni ku jóge màgg nit ñi dañoo ziar. Mm. ba xam ne taaliba màgg wa Seydou Mouhamed Abdoulaye. bun misra nga xam ne moo ko njëkk a ziar si. ak na say naase doxalee moom. ki nga xam ne bis mu duggee si may say naa seex moom dinañ si laal si moom. ndax góor yàlla la woon. te moo doon bindal say naa seex moo ko doon jiite. ba secret si naa sax yoroon sax. Hmm. Mouhamadou Abdoulaye moom mu ma ko doon dénkaan. Mouhamed euh, bun Misra. Hmm. moom mi nga xam ne moom moo njëkk a siyaar Seyna Seex. Hmm. Seyna Seex ñëw na li gars yi ganale nan ko comme kiy jóge màkk rek. def sa alaaji. gars yi ñëw nga jox leen sam-sam. gars yi ñëw di ko siyaar mu leen di ñaanal. toog dëkk ba siyaar rek xelam dem si benn góor yàlla mu ne léegi day jug pour siyaare ji ko Seyd Idrissa moom nag faas la nekkan. Seydina Cheikh moo ngi Tilmisaan Seydina Cheikh jug na di dem Faas dajeeg góor yàlla gu mag Seydou Alioune Xaraasim fekk na ñoom ñaar lu mat dix ans si ginnaaw am na lu histoire bu doxoon seen diggante xanaa bu ñu toppee xisee duñ si jógee Seydina Alioune Xaraasim ak gént ak yu demee noonu doxoon seen diggante bala ko Seydina Cheikh waxal sa gént ga ba si yoon boobu la ko firndeel mm. xam naa yoon moom dañ koy okko ba ñëwaat si karaama Seydina Cheikh yi ndax moom moo géntoon mars ba yenn ndox mi yenn ndox mi karaama yooyu yëpp xam naa ne mm-hmm. duggee si karaama yi ah, rek man ba loolu bëgg xam mooy mm-hmm. bi ko maam joxee tarixa bi mm-hmm. nee nga bi mu nekkee tilmisaan après dafa dem euh, euh, fële Fass waaw doon seeti Idrissa Idrissa waaw waaye mais fan la fan la commencé woote tarixa bi di wax ni maam jox na ko tarixa bi di waye ni tarixa bi lii na ku ci wër woon dugg nii nga ciy duggee. waaw boobu ba tey seen lii ma lay wax lépp. wooteegul ah wooteegul amagul tarixa bi. mais maam jox na ko may waaye wooteegul. wooteegul pour li tax ma ñamal la si Mouhamadou Kouri bu gisee maam. Ah. tey ba tey moo ngi tilmisaan. waaye nekku na tilmisaan la joxe tarixa bi xasro abo samhoon foofu la séenacé abo samhoon foofu la jote tarixa bi foofu nga xam ne benn makkaan xam am na fa di sept ans ah, ah. fukki at ak juróom ñaar boobu nag si la jógee ñu tënk ko rek kon man a gaaw àgg fële Seydina Cheikh kon léegi jóge na Fass ñëwaat na Tilmisaan hmm. toog Tilmisaan rek daal di toxalu léegi ne xaaral ma dem dëkk bu naan xasara boo sam xoon hmm. avant ma fay dem sax jaar ay dëkk lu mel ne Salasa hmm. lu su mel ni dëkk yu bari Salasa ba bëgg na ko de li fay jaar Salasa li mu fay jaar bëri na ndax li ma lay wax rek buur yàlla day gis loo xam ne nit naturel bu ko gis ndax barab bu si nekk rek si borom ak lam fay dëxëñ mm. ba mu ñëwee xasra ba samxoon foofu nag fa mbir ma jollee mm. foofu nag raaxa jaddoo sallallahu alayhi wa sallam mooy yonente bi ñaareelu gis mm. si saa xay yaa nan nag da koy gis bët ak ah. xam la maam na la ko fadruk jami ma xasa min jami turuxi ka xaadiri wa naasiri wa xamaari wa malati wa xalwati mm. an naa waasituka mm. wa mumir la taqi mm. ansil ifadatul xalqi xam sëy naa maam lan la wax sëy seex mboolem tarixa boo yoroon tey comme ni ko maam Seydi Hadji Malick waxee sa fàkk tura bàyyi ko léegi amatoo sëriñ man maay sëriñ yaay sama doom man maa lay yar yow yaa may teewal si kaw suuf léegi li naan waa wasita amatu sama diggante yow mm. heure boo ma bëggee gis da may gis mm. heure boo bëggee jataay ak man da ngay ak man mm. lépp loo soxla dama la koy jox waaye xam nga li ma lay wax rek li uh-huh. li yéeme si naa sax daa bañ laa ko maa waxee garanti yooyu daa bañ xam naa da ngay ne ma lu yéeme la de lu yéeme la kay yow eh, xoolal ko gisee yonte bi sallallahu alayhi wa sallam yàkkamti da yàkkamti pour may la defar rek nga def waaye sëy naa sax daa bañ xam na ko xamal tax mu bañ sët day miin maamam ñu ñaar xamante ne ah. sët day miin maamam hmm. instant ngi gis dugg si kër jekki-jekki gis benn xale jaar fee rek këf koko tempaa bi mu wadd dóor ko mecc wala di ko yëngal ko yëngal ah. nga naan waa xale bii nii tegg a ndawal bi fekk na maam ji li ko xale bii def moom moo ko neex ah. xam nga maam day kontaan si sët hmm. xamal tax maam du kontaan si sët hmm. sët day fayul maam. day moo tax maam day am cofee si sët. Ah. comme rek ndax ñun suñu maam moo ñu yàq. seen bàyyi bàyyi doon def seen bàyyi kii. Mm-hmm. su mm-hmm. ah. boo xoolee foofu rek laay dugg ñaanal sama maam góor gi ndongo déggan yàlla yàlla dooli ko leer sa àjjana firdaws ñun sëtam yi dañoo yàqan ba lépp loo bëgg rek dala koy defal ba waxaan ne sax bu ma génn àdduna. nag wi nii samay sët laa ko may nag wi nañ ko toggal ay sëtam kooku dafa bëggan sët bëgg set goo xamante ni doom yi jur sax sët yi la gën a bëgg ñoo ngi nuyu nag képp askanoo si ndongo déggal mm-hmm. di jël nuyoo bi di ko teg si loxo mbay jéey mm-hmm. mu joxal ñu ko bépp rek set ñu nekk Mbour ñu nekk Gambie mm-hmm. ñu nekk senegal Sénégal kaw la fépp rek macha allah yow ko bëgg mi boo duggoo say mbokk rek doon nangoo dagg da ngay bëgg nuyu ñëpp Euh, kon foofu la ko maam feeñoo. Mhm. mais mu bañ. Mhm. mais lu muy bañ bañ bañ après nangu na. waaw non ay garante waaw garanti mais ah, waaw garanti yi ñëw. maanaam ay nangu na. dafa indi ay garanti. Mhm. comme ni nga ko sañee wax rek si waxin. poñe maam la def. ne ko li mu wax neex na torop waaye man tamit aussi tamit du ma la fekk si fekk lii may saako soo defaloo ma ko. du ma nangu. tamit indi ay points am. ko ko remplir. ne ko daal leneen tax ma nangu. in kunta. baabu li najaati kullu haasi musrifa ala nafsi tataqallah bihi nihma wa ilaa fa ayu fadlin lii leen daal mooy tax yow sallallahu alayhi wa sallam lu ma wax ma nungu ko bu nekkee ne man Seydina Seex baabu li najaati damay nekk bunta muccukaay bi moo sa njëkk nga xam ne képp ku aju si man jël tarixa Seydina Seex suñu borom di yàlla muccal ndax yaa saas tarixa bi li si gën a yéeme te xam nga ne tarixa ku ku jàgg la gën a bëgg. Mhm. xam nga ku jàgg. liy mhm. jàgg. ku mel ni Abdou jóob wala ku mel ni Abdou Diop sax xaw naa ne ku mel ni ndonga ba bokk. ku mel Abdou Diop. Abdou Diop sama doomu bàjjen la. nu bu mel ku mel Abdou Diop waar la boo ko dee rek neel ab fàqman la rek. Diop moom hmm. hmm. la gën a bëgg. waaw ah. xaw naa te ne wala ku mel ni ndonga ba. li nga xam ne bu la romban fii rek. yow nga téye say poos lu mu sa fekk da koy yóbbu. xamaa <laughs> say doom bàjjen la. samay samay doom bàjjen la. waaw wala xeet waaw. waa ji nag sëy naa seex loolu wax maam bu fekkee daal man nekk naa buntu muccukaay bi. Mhm. ba képp koo xam ne dem nañ ba ñëpp ne kii moom mënatul a baax si kaw suuf. Mhm. Hmm? bu duggee tarixa bi tarixa bi da koy cuub ndax la yónnente bi waxaan rek. Mhm. yow saas yow boo yoree sa kër gi géej nekk sa buntu kër. chaque jour boo xëyee. Mm. sangu juróomi yoon. Mm. ndax tilim. Mm. wala dara dina daxati sa yaram. yow nag boo xëyee astaxfirullah ngoon astaxfirullah salaatul fatiha laa ilaaha illallah kooku taq dina desati yow xam nga la ko maam wax mu ngi naa dane ko anta baabun li najaati kullu xaasi musrifa ala nafsi anta xutbul maktuum yaa saa est xam nga ne Seyna Seex turi maam moo ko ko tudde mm-hmm. alxam xutbul maktoom mm-hmm. bar sàq bara saxil maktoom mm-hmm. bari na turi ni dàkkante Seyna Seex si gisee nag maam boobu si la ko ko maam tudde ndax maam moo na ko jàkk na yow yaa xutbul maktoom moom kon euh, garaatu xam mu ak kat bu fan ko amee loolu def des na boo xoolee Seyna Seex loolu eh, li ma la wax nii moo ngi am quarante sept ans quarante sept ans te dund na Seex quatre-vingts waaw léegi ñu bëgg xam tamit bu mu jot foofu la jotee tarixa bi. foofu la jotee tarixa bi fa la garanti maam maam garanti ko lu koy mm-hmm. léegi fa la wootee. kon moom la ma déggee euh, fan la njëkk a wootee mooy. abu abu salman mm-hmm. abu salman ba mu wootee kan moo ko jikko a gëm xam nga bu ñu nee Seydina Mahamad woote na. Mm-hmm. ñu ne Ababacar Sadiq xew njëkk gëm. bu dee jigéen ñu ne Khadija. bu dee xale ñu ne Seydina Ali ñu bëgg xam Seydina Cheikh bu mu wootee ni sama maam jox na ma léegi ngir ma xettali jaam yi comme ni ko suñu maam sëriñ baa wa xat nafa an naarada kon nga xam ne bi mu ñëwee kon kan moo njëkk a gëm Cheikhoul Tidiane kan moo njëkk a nekk taalibi Cheikhoul Tidiane waaw boo xoolee sëy naa seex foofu borom xam-xam bi si am ay xilaaf hmm. ndax ñu ko wuyisil ay góor yàlla lañ xam nga boo demul sax foofu Sénégal gi rek bu ne la diw taalibi sëy naa rek doy naa xam kan ma Seydi Seex loolu kay bul jël Seydi Xaaji Malik bul jël maam ñàkku Sarr bul jël boam cana ba jël Seex Seex Omar rek te bu la waxee Seex Omar ginnaawam ki wéeru rek nga xam ne kooku ginnaaw gu mat ginnaaw la ah, Seex Omar Seex Omar nga wax de waaw Seex Omar kooku ponk la de dama ne la boo bëggee xam Seydina Seex Seex Omar bëri na de da nga war a wàcc si ju mel ni yow kay. no non non ñaan saa yëpp bëri na yow la ñuy wax yow itam. non non ñi nga bëgg li bëri nañ de. ñaanal ñu ma taalu bi rek. ñooñu bëri nañ de. ñaanal ñu ma bi rek. li waay li waay naan daa bare. Mm. mais ñooñu dañoo bare. comme moo bëgg laa wax tuuti Seyna Cheikh rek. comme ah. ñi nga wax ne ñenn ñoo ko wisu. Mm. Seyna Cheikh tey bu ñu moom si ay taalibeem ak ay kanfoore yi nekk ay góor yàlla bi nekk Seydou Mouhamed Boun Missiré moo njëkk wuy Seydina Cheikh. bu Misir boobu jaaroon na ci moom bu na si moom. avant muy jël tarixa bi avant muy jël tarixa bi. Ah. Seydina Ali wuy si na ko. ñoom ñoo ñoo kii woon woon dix ans. dix ans ah. Seydou Mouhamadou Xaali. Ah. nga xam ne góor yàlla la. dinañ àgg si moom. si jëflante gi mu jëflante Seydina Cheikh. si biir tarixa bi. Mm-hmm. ñoom ñoo wuy Seydina Cheikh. Mm-hmm. boobu nag seen mbooloo ma. Mm-hmm. bëbbe. comme na ko maam Seydi Hadji Malick waxaan sa xalaat rek. keroog ba gars yi wuy si yonente bi. benn lan woon. jóge benn dem ñaar dem trente ba 29 ba Seydina Omar ba mu ñëwee rek 30 bi rek. xarajo sujjul ah. ci leen génne nañ. Ah. léegi nag Seydina Seex maam jox na ko tarixa bi. Hmm. jox ko garantie hmm. yi. mu foofu rek. Ah. da koo wax ay wax neex. Hmm. xam nga la ko. antal wala di. wa waare si. ba xel mi séeral xaddar yi. yow sax yéemoo si mën a jox tarixa bi léegi. yow yaay sama doom. yaa doon sama sekk rek ah. yaa doon sama lépp. comme ah. ñu tënk ko rek. Ah. ba sa maam sa la ko wax. léegi dafa tabaarakallaahu oustaz fi nga yem neex na lool mais waxtu bi moo ñu dabaat moo tax euh, waa ji daf ni geste nii wàcc nii toog waaye émission bi day gën a àgg. mën nañ ko di dagge daggee waaye day gën a yegg incha allah rabbi ñoo leen ko leboon fa moom weer wi moom du ma jël kenn ku dul yow du ma jël kenn ku dul yow ñu waxtaanee si waxam si bu noppee bu ñu waxtaanee si rajement yi mhm. wala ñu waxtaanee ki nga xam ne moom mooy Cheikh Amar Fouti mhm. wala ñu waxtaanee ki nga xam ne moom mooy mooy moom Ñanku Sarr mhm. ku ñu war a xam la nag ndax bari na li ñu koy tudd sa tur bi sa gémmiñ bi te te te mënuñu ko te war nañ ko war nañ ko xam war nañ xam moom Ñanku war nañ ko xam ndaxte nit ki nit ku baax eh, di alxuraan wax zikru saalihiina do alxuraan sa arab ko wax zikru saalihiina te fa nazaru baraka waxtaanee gars yu baax yi. day wàccee barke ci réew day bàkkee day wàccee yërmande ci kon maa ngi ko loolu war nañ ko xam. daañu def ah, ah, daañu def euh, euh, waxtaan spécial. ci maam Niankou Sarr. nga wax ni kan mooy maam Niankou ndax li ñu bari na. wax ni yi nga xam ni. mooy saareen. fa jaar na fa. ak ba mu fay ñëw. nu mu ko fekkee ak lan la fa def. ak tey si jéeg doom yi fu ñu toll. kon ñoo leen kon ñoo leen ko digaat. yéen ñi nga xam ne yéen ne ci réseaux sociaux bi. di ko ànd ak ñun fii ci Salam Vision ci jotaay bi may ànd ak Oustaz Ibrahima Diarra ne woon naa leen dinaa ko indiwaat ndax yéen a ko indiwaat naa ko mu ngi nii ajjuma dinaa ko indiwaat incha allah rabbi bu fekkee mi ngi am wér rek maa ngi am wér du ma jël kenn waroon naa jël seen jiiri tabaarakallaahu seen jiiri di taalibe Serigne Modou Khady Fall waaye daf nay na ma jéggal rek ba ma ba ma pare ci kii am na ñeneen ak ñeneen ñu taxawoon ku ci mel ni fa tabaarakallaahu Mbodj di taalibe Cheikh Abdou Khadir Jilani di tagg si dama moom it waroon naa nga kanam bis waaye daal fan yii dafa am kilifa bu mat kilifa di Ahmed Tijani Sarr mi te li muy wax ci Cheikh neex na ma lool te neex na tamit ñu koy seetaan su neexul woon ñu koy seetaan yaakaar na du ma ko dellu si waat kon Mouhamadou Moussa Sarr nga tàggoo tàggoo bu dul tàggatoo xam ne àjjuma incha allah rabbi da ngay ñëwaat. waaw yow Saas ah neexal na de waaye li naan. yàq li du li du si nag dañ ko dagg dégg xaju ci cin gi ah. waaye nag xaj na ci cin yi ah, dañ ko dagg dégg waaye sëñ naa seex bu ñu doon def chaque semaine ñoo jël benn thème si moom traité ko fii ba 2021 bi jeex sëñ naa seex du jeex hmm. ndax sëñ seex la maam Seydi Babacar Si wax rek maanaam woo baxrun maanaam sëñ seex géej la hmm. te leen fi wax lépp rek dafa mel ni yow mi jël sa hmm. kaas rek dem si géej wala jël sa jaaro dem si géej cëpp ko sa yuddireekuma wala taw rek jaar mm. wala kaana yax waaw mm. mënoo koo sax xam mm. kon nag ñoo ngi yem foofu di tàggoo tàggoo bu du tàggoo di wax ne kontaan na bu baax a baax si seet bi ñu seet siwaat kenn mooy maam ñàkkur Sarr xam naa nag nit moom di wax si maam sax <laughs> ndax yombul waaye maam ñàkkul saar wax dëgg fa yàlla waxuma sax moom ah. waa ay doomam ah. waxuma sax ay doomam ah. ay sëtam waxuma sax ay sëtam ay muxaddamaam ñooñu rek. ba si fii si Dakar. Ah. tey foo taxaw rek. Moussa. Hmm. daal ci ñëw bul daanu. Hmm. xam naa bu wax maam ñaar sa xol sa sa ñuy wax si comme ça ndax. waaye yaa Oustaz kon xam naa kon ñoo ngi yemandi foofu. Hmm. di wax ne comme ni ñu ko digg rek kon ñu yem fa baajuma bii di ñëw. di nuyuwaat ñëpp rek di nuyuwaat suñu xalifa général. Baye Abdou Aziz Sarr yal yàlla yokk fanam guddal cëram. docteur Mohamed Sarr. porte parole am yal yàlla guddal. fanam wér ay cëram suñu baay Serigne Sarr baay Serigne Imam suñu waajur jigéen ak suñu waajur nag soxna Nogoy Sarr nga xam ne kenn la suñu suñu bàjjeni bàjjen Ngone Sarr bàjjen Fass Sarr ak suñu bàjjen Abilo bàjjen Ndey Seck ak suñu mag ñëpp nag di jël nuyoo boobu nag di ko teg si suñu loxo kilifa di Serigne Moussa Sarr ibnu Serigne Ñàkkur ñu nandal si tarixa bi mu séddal ñu ko suñu doom bàyyi yëpp di nuyu ñëpp rek kon yaay Oustaz ñoo ngi yem foofu leen jox ci daje ba ëllëg incha allah. incha allah alors. yaa bi fii ak. Euh, Oustaz Ibrahima Diarra fii ci Salam jotaay mag ñi. du ma daaneel mukk te nuyu ma la DG sëñ Sam Seck. Euh, sëñ Sam Seck. Mhm. ñoo ngi koy ñoo koy ñoo ngi koy nuyu di ko ziara. di nuyu fa tabarakallah seen Ousmane mi réalisé émission bi. duma fàtt nag sama Serigne Sëñ Diagne Bousso Serigne Babacar Sall di sët si Serigne Babacar Sy duma fàtt mukk Serigne Mouhamadou Sow Sy responsable moto fi ne fi asa abal ajdaari waaye lu ma fàtte ma Ousmane si da baax lu ma fàtte sama baay ju baax jooju Papa Mor Papa Mor loolu dund doyul Papa Mor maa ngi lay ñaan bu baax a baax a baax yàlla nga dund ba sa njaboot yëpp yóbbu la màgg bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu ma fàtte sama yaay bopp lii nekk ba dagana waaye sama soxna su baax soxna di soxna Jeng tax na sama yaay tëriwul saltewul ñàkkul soxna loolu dund doyul chéri Babacar Diarra dama fàtte suuna nag sama jarbaatu boobu ak mboolem koo xam ne rek yaa ngi ànd ak ñun fii ci Salam Vision ñu ànd ak yéen àjjuma ji bii nii ak Seydou Mouhamed Sass Atijani bii di ñëwaat moom la ñuy àndaat ak moom wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala